wa ashaabihi wa jamii ixwatihi al anbiyaai wal mursaliin wa man ixtafaa bi athaarihim wahtadaa bi hadyihim ilaa yawmi ddiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ñu baal ma nag ci qualité baat bi ni muy génne jagadi waye waaye ñu baal ma te ñaanal ma ci dañu dajee tey seet ni réew mi di doxe te ñu bokk ci réew mi Euh, di am fu ñuy royee te daan dégg suñu kilifa gu baax nga daan ne xanaa luma ma saña di saña di ci réew mi laa bokk mu suñ bàyyi El Hadj ci loolu la ñuy roy ci seen wax la ñuy sukkandiku waaye bu fekkoon ni wax dana doy li fi wax àddina yëpp dégg ko mu jëf ko àddina yëpp gis ko mu dox ko àddina yëpp teg ci seen bët kon dana doy waaye santaane yàlla du am fu mu yem ndax ñaan yàlla jaamu yàlla la te yàlla dafa wax ni waabud rabbaka xatta yaatiyakal yaqin maanaam jaamul yàlla ba ba ñu lay tëral ci kuusu bàmmeel ñu yëkkati nuyoo nag di ziyaara kilifa yi nga xam ne yàllaa leen jox cër teg leen ci suñu kanam nuyu suñu kilifa gale ci Louga di Thierno Bachirou Tall ak njabootu Cheikh El Hadj Omar yëpp nuyu Madani nuyu Cheikh Muntaka ca ca Tuuba mënoon nañ ni limu mu wax ci fan yi bu ko ñëpp doon déglu di ko jëfe kon kenn mën na bañ a wax te doy la wax jooju ndax boo dee lim ci réew mi ñi baax Ceerno Muntaxa kenn du ko ci gën a placé ci mbaax feeñ na ci bindam feeñ na ci waxam feeñ na ci jataayam ah fa tabaarakallaahu ñu yëkkati kàddu nag jëme ko ci mboolem kilifa yi fi